jaamur yi yéen a kat seen ndey yéen a kat seen ndey seen demal ndey Macky Sall seen xeler dox Macky Sall fay lim dañ jëwoon ndeyam ngeen solo ndey yi man li ma àndal ñoo ma réer gaan nag ba lakk ma dem lakk ma dem moo ñëw. encore une fois ñu ngi gazé waat euh, cortège bi có có bảo nguy cơ gì à

non non non non non nii la nii la eh nii la nii la nii la. waaw lii waruñu ko woon def tey bi dem ci dem ci kër Serigne bi bokk ci woon tey. maanaam Cheikh Thioro moo nekk ci biir bi ki dem. bokk ci woon tey. léegi xaar bi jeex ñi taxaar lay Macky Sall nga cocktail taxaar ndeer gën ko day réew maa ngi tànnee moom njabootam non non non baaxul de dëgg la arrière, arrière. Arrière, arrière.

fii lañ ñu bëggoon a tere aksi aksi nañ fii aksi nañ fii président usmaan Sonko fii ci Baye Fall gi mi ngi nii ci bayalu chantier Baye Fall sur invitation du xalif de Baye Fall noonu président aksi na président agsi na fi ñu ko doon xaar mu waroon a ñëw fii fii ci Baye gi war a barkeelu gis nga jërëjëfe borom Touba waroon a barkeelu fi nga xamante ne moom moo di Baye gi chantier bi stade bi newoon mu ñëw fii waxoon ko sànq promettre ko sànq ki nga xamante ne moom moo di la xalif Débaye fal mu ni ko balaa may génn Mbàkke dinaa doxantu ba agsi ci seen liggéey bi ma xool lu ma ci mën a def waaye itam ma woo ci patriote Sénégal yëpp ndax projet la boo xamante ne projet wu askan bi la mi ngi noonu on est bien arrivé malgré intimidation yi malgré agression yi malgré charge yu répété yi président Ousmane Sonko le Baye Fall du Sénégal Baye Fall askan bi mi ngi noonu mi ngi noonu nee nañ leen match amical du am benn match officiel mooy am mi ngi noonu mi ngi noonu askan baa ngi dajale ko seen bopp malgré lacrymogène yi malgré charge yi malgré xeer malgré sabotage yi agsi nañ fi nga xamante ne moo newoon la destination du président Ousmane Sonko ndax sànq ci suba bi mu demee ba agsi ak fi nga xamante ne moom mooy ci xalif Baye Fall mu ñaanoon ko mu ñëw mu xool fii liggéey bi nu mu demee mu ni ko balaa may génn Mbàkke dinaa fi ñëw incha allah mi ngi nii ñoo ngi soog a agsi dañoo benn yoon dem waaw aujourd'hui le peuple sénégalais l'Afrique et l'international ñoom toog nañ gis li xew Sénégal gis li xew Sénégal mbirum jaay doole waaye waaye bés a ñëw président ngi noonu président ngi noonu di génn mi ngi noonu mi ngi président ngi noonu mi ngi noonu mi ngi clean waaw président yàlla sa fan bu dugal. jàmbaar la jàmbaar jàmbaar dëgg mooy yow Ousmane Sonko yaay jàmbaar jàmbaar la mooy yow. Thank you.

Oh, oh, hey, hey, hey.